bokk ci xéewal yi mu di xéewal gim ñu xéewale ba ñu fekkee weeru koor mu di weeru ramadan mu di weer wu tedd gannaaw gi ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi nga xam ni moom moo ñu jàngal xamal ñu lan mooy koor ak naka la ñuy woore wooree alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi nuyu mbooleem jullit fu mu nekk mboolem doomu aadama fu mu nekk ñoo ngi leen di nuyu nuyu islaam mu di ñaan yàlla jàmm ju baari ak yërmande bu baari ak barke gu baari yàlla na ko suñu borom yàlla sotti ci kaw xeetu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama fu ñu nekk ci àddina sotti ko ci àddina bi yépp incha allah ñaanal leen yéen mbokk jullit ña nga xam ne yéen ñi seetaan ñi nekk fii ci senegal ànd ak uh, Hann TV di topp jotaayu koor ak ña nga xam ni ñu ngi ci bitim réew moo xam ñu nekk Europe la moo xam ñu nekk Asie la moo xam ñu nekk uh, Amérique la ñu nekk mboolem ñu nekk ci bitim réew di seetaan ak dëkku Afrique yi képp koo xamante ne ni yaa ngi topp Hann TV topp jotaayu koor ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla nangul ñu suñuy koor nangul leen nangul mboolem jullit ñoo ngi nekkoon ci si waxtaan yu am am solo nekkoon di waxtaan ak yeen di fàttalante ak yéen jotaayu koor waxoon nañ la koor dafa ñëw indaale ay xéewal yu baari waaye indaale ay kado yu rëy rëy ñuy ñaan yàlla nag man mii di waxtaan ak yéen ñii di déglu yal na yàlla sedd ñu ci suñuy wàll fan yi ñoo ngi doon waxtaan ci ay ngëneelu koor waaye tey dana ñëw ci lu ñu tuddee attey koor ahkaamu siyaam wala ahkaamu sawm dinañ ci ñëw wax chartu koor charte ya nga xam ni yiyey wéral kooru doomu aadama danañ ci waxtaan waaye tey tamit danañ waxtaan ci mbir mu am solo ndaxte nit ki mi ngi woor yenn saa am ay njuumte yu muy def yoo xam ni mën naa yàq kooram loolu la ñu tuddee mubtilaatu saw yooyu tamit insha allah rabbi danañ dugg ci tomb yooyu waaye tamit am na lu ñu tuddee mustahabaatu sawm ya nga xam ni dañ ko sopp lool ci ka nga xam ni mi ngi woor mu koy jëf yooyu tamit danañ ci ñëw waaye tamit danañ ñëw ci makruhatu sawm ya nga xam ni dañ ko sib ci ka nga xam ni dafa woor di ko jëf ñu xam ne li ñu tudde aqsaamu naasi aqsaamu naasi fi fi siyaam xeetu doomu aadama yi maanaam ñi woor ñan lañu dafa am ay catégorie ay xeet bokk na ci ñi woor xeet wu njëkk ba ñu xam ne kii woor faw mu nekk al muslimu al baaligu al aaqilu min al mawaani ka nga xamante ni nii dafay doon julit kuy woor faw nga doon doomu aadama boo xam ne jullit nga ku dugg nga ci diine islaam ndax koor gi bi muy wax dafa waxoon ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ña nga xam ni gëm ngeen yàlla kon ñi gëm yàlla ñoom la yàlla di waxal kon képp koo xam ni bokkut ci ngëm yàlla wala newu ci kooku su wooree suñu borom du nangu kooram waaye kon ki ñuy nangul mooy koo xam ni julit la kon ku dugg ci islaam كنن كي موي البالغ موي كيغا خامني مكلف لا دا نانتي نيو اك كاغا خامني العاقل كو خامني بروم خيل لا مانام خيل بي نيكول بروم خيل بو سغ مانام خيل مي امون فيبرو خيل كو وير لا كوك تابيت داني نانغو كورم اك السالم من الموانع اك كاغا خامتيني ني دا فا موتشو تي اي تيري ياغا خامني شريعه دا نكو تيري ديت كي فكيني دال نكو غانتو يوي مو وور maanaam ko mucc ci ngànt yooyu euh, ka nga xam ne nag moo di albaaligu mooy mukallaf kon dangay ci déggee kudul mukallaf moo di gone assarir mooy xale xale nag fala yajibu alayhi siyaamu xale moom koor waru ko waaye nag dañ koy tàggat xale boo xamante ni xale la amagul majeuragul kooku koor waru ko waaye dañ koy tàggat tàggat gi mooy day laaj sax yenn sa ñu jox ko ay neexal mu di woor ñu ko ci tàggat ndax umpule ne gis nañu bari na ay mag yoo xam ni bëgg nañoo woor tey waaye duñ ko àttan wala suñu wooree da leen day metti ci ñoom li waral loolu mooy bu ñu nekkee ay gone dañ leen tàggatul ci koor kon xale bi dañ koy tàggat ci koor waaye nag duñ ko ci dóor duñ ko ci xëbal di ko sonal déedéet dañ koy tàggat di ko defar jox ay neexal saa yu xii xiifee sonn ci xaw a koor gi ñu ne ko na dog lekk demaat ba yàgg ñu ne ko mu continuer yu mel noonu yu mel noonu am nooy def ak xale bi di ko tàggat ndànk par ndànk mu bañ a nekk force ndànk par ndànk ndaxte xale moom dafa nekk loo xamante ni ni assabiyu li borom xam-xam bi di wax dafa ne amaanatun inda walidayhi fa in uwida alxayra wa ullimahu nashaa alayhi nee ne xale Euh, kóolute le maanaam dénkaane la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf la kaa dénk moomoo ko nee na dénkaane googu nag nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko dénk ay waajuram waajur yi moomuñu ko nee na nañ koy tàmmal yiw di ko tàmmal mbaax di ko xamal maanaam di ko jàngal loolu da ciy dem ba nga xamante ni ni daf ci màgg su ci màggee nag dootul ci kon xale koo xamante ni ne xale la koor waru ko waaye dañ ko ciy tàggat ñetteel ka nga xam ni qismu thalis kooku mooy almajnun alladi la aqla la ka nga xamante ni nii amut xel maanaam xel mi dafa dafa sëgg dafa am feebaru xel kooku nag mën naa nekk ñaari nit am na koo xamante ni dafa feebar rek daa iman dafa feebar feebaru xel rek la am kooku du woor ak ka nga xamante ni nii day feebar tey mën naa am xelam waaye ëllëg xel mi daal di tukki maanaam daal di fàdduwaat kooku saa yu xel mi ñëwee ci moom dafay woor waaye su xel mi fàddoo ci moom kooku dañ koy jàppal ngant du woor foofu kon ñu xam ne ne ka nga xam ni xel newul ci moom kooku tamit dafa nekk koo xam ni koor warul ci moom am na keneen koo xamante ni nii mooy xaaju ñenteel bi mooy ka nga xam ni al ajizu an siyaami ajzan mustamirran la yurja zawaluhu mooy ka nga xam ni dafa lottu ci koor lott goo xamante ni nii dafay wéy maanaam du mën a woote loolu dafay continuer te amuñu yaakaar ne loolu dana dañ suñ ci joxe woon misaal ku mel ni mag mag goo xamante ni nii dafa mage mage na lool dem na ba nga xamante ni nii su wooree da koy sonal koor gi day metti ci moom kooku islam daf ko ne kooku mën naa bañ a woor waaye nag am na lu muy def dañu tuddee leele dinañ ci ñëw leele mooy joxe ñam saa yu wooree ba ngoon jot rek mu attan ko mën ko na joxe lu tolloog muddu maanaam lu tolloog murum koor noo koy joxe bopp boobu nga génnee ko su fekkee ne dañoo wax ne ti ñaar téeméer la nga def ñetti téeméer ndax mu am ay saf-safal yu ci àndaale su fekkee ne téeméer la nga def ko ñaar téeméer daal di koy joxe jox ko ab jëmm di ko def noonu ba koor gi jeex mun naa nekk benn benn mun naa mun nga kaa boole yépp tamit daal di koy eh, joxe kon mu ngoog mooy ko nga xamante ni ku mage la wala koo xam ni dafa feebar kooku xam dafa feebar feebar boo xamante ni nii médecin yi dañoo wax ne feebar bii du wér te dafa ñeme wut xiif su xiifee mun na kaa jurat leneen mun naa yàq ci ay cëram leneen loo xamante ni nii eh, koor gi xiif ki mook koy yóbbee kon kooku ngant am na ko kooku day daal di arrêté kooram kon kooku du woor kooku tamit day leele ba nga xamante ni feebar bu lu ñu tuddee maradul muzmin feebar gu sax la boo xam ni moom médecin yi dañu ne feebar bii du wér eh, feebar su fekkee ne nit ki daf ko feebar te médecin am nee na ko yow kat munoo woor soo wooree dina la indil ay gàllankoor kooku tamit dañ koy daal di jàppal ngànt kooku bés bu nekk dafay leele dafay joxe nit day joxe ñam waaw ah, kon mu ngoog ah, mu mu nekk ñii ña nga xamante ni nii xaaj yi ñooy woor dafa am nag loo xamante ni nii tamit war nañ cee xam war nañ koo xam mooy la nga xam ni dafay yàq koor li yàq koor nag mooy mubtilaatu sawm dañ ko war a xam bokk na ci la nga xam ni dana yàq koor mooy nit ki woor ci bëccëgu weeru koor mu daal jaxasoo ak soxnaam mu jaxasoo ak soxnaam diggante góor ak jigéen lii dox seen diggante ñu daal jaxasoo booba nit ki su ko defee kooram daal di na yàqu te boobu da koy continuer woor ko te nag su noppee nag fekkee ne def ko tey nekkul réer a tax mu def ko daa daa fekkoon ne ko xamut la waaw mais ka nga xamante ni nii daf ko xam def ko boobaa nag day am ay daan yu tegu ci kawam daan yu xaw a tara tar tar sax sax la waaw mu ngoog kon kooku aljimaaxu kooku day yàq koor ak koo xamante ni nii daa woor ci bëccëgu weeru koor mu daal di loocu loocu moom mooy ka nga xam ni dafa lekkoon ba noppi mu daal di jël baaraamam di fexe di forcer di forcer pour pour pour pour wàcc bi daal di ñëw kook tamit su daal dee waccu bës boobu da koy continuer waaye tamit bés boobu yàq na kooram dafay fay bës boobu bokk na ci nag tamit ko nga xam ni dafa woor ci bëccëgu weeru koor mu daal di eh, lekk te tey ko mbaa naan te tey ko kooku tamit kooram dañuy wax ne kooram yàqu na waaw ah, kooku tamit dafay am ay daan yu tegu ci kawam su fekkee ne tayeef la moo ko tey kon loolu ñu bàyyi ci xel bokk na ci la nga xamante ni lépp loo xam ni soo ko jëlee moo xam ci gémmiñ la jaar moo xam ci buntu suufam ci suuf la jaar bën bën yi suñu borom subhanahu wa taala defaral doomu aadama yi dugg ak fi muy génnee fekkee ne ci côté yooyu la jaar ba nga xam ni yegg na ci estomac bi boobaa kooku dañuy tuddee koor gi yàqu na lépp loo xam day jaar ci bën bën yooyu ba yegg ci estomac bi koor gi dañuy wax ne yàqu na bokk na ci nag la nga xam ni tamit dana yàq koor mooy jigéen boo xam ne dafa woor ci bëccëgu koor daal di gis deretu mbërëg ñu koy wax deretu règle mbaa deretu wasin kooku tamit kooram dafay yàqu waaye nag su fekkee ne toog na ba deret bi daal di jeex ci moom set ci moom dafay fay koor gi waaye nag day continuer waat kooram koy koor gi da koy fay su koor gi jeexee waaw da koy fay waaye nag dina continuer waat kooram bokk na ci yi nga xamante ni nii dafay yàqu koor mbokk julliti xam naa ñu taxaw foofu incha allah dinañ continuer yi yàq ak yi ñu sip yooyu yëpp danañ ci continuer ak yoo xamante ni nii ay njuumte la nit ñi ñoo ngi koy def ci koor muy yàq seen koor te duñ ko xam kon ñu ànd ak Hann TV ci jotaayu koor incha allahu rabbi ñu continuer jotaay bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu